ñu ngi leen di sant bu baax te di gërëm di gërëm kii nga xam ne moo taxawal lii di Mor Touré Dabo ñu ngi ko gërëm bu baax a baax te di ko sant di ko ñaanal yàlla ndaxte lii de wax dëgg yàlla xéwal la gu réy la ci ñun xéwal gu réy la ci communauté bi nga xam ne ñoom lañ jox lii kon tey kon daal ñu ngi koo sant te di ko ñaanal yàlla bu baax moom ak njobootam ak képp ko xam ne yaa ngi bokk moom liggéey bii ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla yàlla may la sa bëgg-bëgg sa càkkuteef yëpp am na ñu bëri ñoo xam ne ah ñu ngi ko ni doon amuñ ko kon ñu ko amee wax dafa yàlla dafa nekk loo xam ne lu rëy la ci ñoom lu rëy rëy la ci ñoom ñoom daal xanaa rek di leen sant rek te di leen gërëm yéen daal yàlla moo am seen fay ñu mënuñ leen a yàlla moo leen mën a fay